surtout suñu ay euh, prison mu ngi fees dell ak it euh, ay xale yoo xam ne euh, encouragé wu leen dañuy tux rek benn joint yamba wala sax ja jaay xari jàmbur ñu tëj leen ñu ponkal yi nga xam ne comme ni ñu koy waxee ñu ñu ootee ooyee suñu ay kilifa chaque jour ñu leen dégg si ay deal mais dafa mel ni comme ñoom bu ñu tëddee si ay pavillon spécial la ñu nekk te ah. duñ fa yàgg aussi te est que justice bi aussi mais su fekkee ni fekkee ni par exemple dañuy jël dañuy jël du ma ne sax Bougazelli Alioune Sall alalu réew mi mu sàcc kenn nit mënut a sàcc boo doon sàcc di naaw sax mënoo dab Alioune Sall ci pétrole Sénégal bi mu dóor mujjul fenn son frère a tout fait ba laafee ko ba mu set c'est que loolu tey loolu bu dul Macky Sall kan la justice bi nga xamante da ko def ko ci poosam parce que ministre bi tey attends justice mu mën a mel ministre ministre de la justice mooy seen patron ah. mm. ministre de la justice ku koy tabb. président moo koy tabb donc loolu sax yàlla moo ko def loolu ñoom pouvoir yi jàppale tourné ko tourné ko ba yëpp ñëwaat ci président bi moo yor le pouvoir maanaam pouvoir mooy mooy président mooy président wu mhm. moom moo géré le pouvoir yi ci moom lay dellu si mhm. donc kon justice bi su meree nii moom la mhm. ak ay bon ak li ma ko wax entre guillemets des juges yoo xamante ni ils sont pas indépendants dañuy wax nag ni état de droit xam justice day indépendante xam kërëb dañu toog pouvoir pour seen li ma la wax noonu rek li Serigne Touba waxoon bakken napsu bakken bi mhm. Mhm. Euh, juste rappeler aux internautes euh, ñuy topp di ñu seetaan suñu différentes plateformes yi yéen a ngi seen biir émission le rendez-vous de Sénégal 7 et je suis avec euh, Abdou Karim Koumra coordonnateur bu Nitu Dëgg Valeurs ñu amal waxtaan bu am solo par rapport ak actualité yi Guinée réew bi ak it ay bouleversement yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fan yi noonu Abdou Karim ñu hmm. wax euh, si beneen mbir boo xam ne xam naa dina la soxal hmm. euh, d'ailleurs sax euh, Jamra hmm. bu Mame Makhtar ak Mballo Dia Thiam bu SUTSAS ñu ngi am benn conférence de presse boo xam ne rek pour wane seen ñàkk ànd nga xam ne ay euh, féministe euh, ay kuréel yoo xam ne dañuy jóg rek pour xeexal jigéen ñi seen ak ak seen yeleef euh, ñu pour dénoncer li nga xam ne yooyu la jigéen dañ ko bëgg pour ñu dogal ko fii nii si réewum Sénégal moo nekk li nga xam ne mooy avortement médicaliser ñu mun ko may ay jigéen yoo xam ne rek da leen violer wala sax ñu am ay inceste tey jii euh, ba est yow Abdou Karim xrum euh, jigéen yooyu ñu nekk ay ses mhm. di nga leen may euh, pour bu leen sàkkoo si anam bu leen neexul ñu jël si jëndee si ay ëmb pour ñu mën a aussi. ñu rey bi. papa. <laughs> ah lan la. ah. <laughs> <laughs> xam nga lan la c'est très simple moom laa la wax sànq fa la delluwaat mooy ñun au fait dañu sàggal ba suñu ennemi ñoo jàngal suñuy doom. te jàngal ñu suñu diine yow bu fekkee euh, dafa am inceste la par exemple bu fekkee nii dañ la violé wala sa ndijaay wala sa mag sa papa moo la tëddee wala affaire yooyu xale bi lu si yoon. ah mais aussi euh, euh, certes xam nga Sénégal dafa naqadee waxee. non da ngay wax xam naa da ngay wax Sénégal xam nga dafa naqadee wax ñun ñëpp yow seen journaliste ngay def. voilà ñun ñëpp ci comprendre mais mais aussi tamit jigéen bi nga xam ne. yaay euh, papa moo ko sàkk wala nijaayam wala mhm. frère am mhm. wala sa benn samba booy aussi mhm. euh, moo ko violé si àll bi nga xam ne euh, elle n'avait pas demandé sëy ak ñooñu ba jëlee si li nga xam ne ëmb est que aussi mu nekk ko aussi forcer à ce que mu jël doom boobu nga xam ne accepter doom boo xam ne moom euh, demandé wu ko aussi est-ce que yéen a ngi bàyyi xel aussi relation entre ces deux parents bi muy jigéen bi ak doom bi nga xam ne. waaw xam nga sànq dama la wax ne ñun bu dara xewee dañuy dellu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sànq bi li mu wax ñun duñ ko laam-laamee ndax ñun ay soldaaram lañ. Mm. dina li mu wax ñun duñ ko dindi cest à xale bi nga xamante ni moom. yow peut être sàkku nañ la tey tey ñu ko wala dañ la forcé viol nga ci xale lu mu def loolu laa la laaj sànq te ba léegi tontu woon léegi dama lay rey rek parce que yow loo xam ne man sama yoon si nga rey ma ci non non ñaam xaaral ma yëgale ta question ne la diine nu wax xam laa dama ne la ñun malheureusement suñu doom yi ñun suñu ennemi ñoo leen di jàngal suñu sœur yi suñu ennemi ñoo leen ay intellectuel lañ entre guillemets comme ni ñu koy waxee quoi waaw ma entre guillemets intellectuel comme ni li gën a doy waar ci àdduna mooy comprendre ma jox benn exemple Sidiki Kaba par exemple ministre des forces armées mm. papaam xaafisu alxuraan bu mag la mm. boo demee Tambacounda seen kër ba léegi dañ fay jàngal alxuraan Sidiki Kaba défenseur d'homosexuel la droit de l'hommiste la day défendre góor jigéen te pourtant xaafisu alxuraan la baayam kon jàng na alxuraan mm. moo tax ma la ñu dañu faussé départ bi xam ngeen ko pa am di jàngal alxuraan ba këram ba seen kër ba léegi Tamba dañu fay jàngal alxuraan ça moo laa ne ñun au fait xaaral ma taxaw femme yi taxaw ci organisation yi di wax mm. naan ay féministe lañ di expliquer naan dañu war a bàyyi jigéen bu ëmbee ñu forcé ko dañu war kii defal ko kii bi non waxin ëmb façon ëmbin bu nekk dañoo am ay critères aussi njàpp loolu yàlla lu yàlla du juum mënoo contrôler nit mën na ñëw ne la sama bàjjen sama nijaay wala sama sama pap moo ma ëmbal fekk moo nekkoon ca la ko neex di bañ gàcce lijjanti fexe ba indi la ay kayit nga reyal ko koo xam ne moom ci ay poom lay reyee nit te ba léegi ñu rek léegi yàlla du juum yàlla lu mu wax rek am na lu tax léegi nag ma ne su fekkee ni nag yàlla mi ñu bind subhanahu wa taala moom moo toog xam lépp ni muy demee mu ne bu leen def loolu ñun ci loolu la ñuy delluwaat ñi femmes yi nekk fii organisation yi féministes yi ngay gis ni yëpp lu ci ëpp ay gëm ay gëm yàlla lañ de ñii ay julit lañu ñii ay chrétien musulman yi sax ñoo si ëpp nga xam ne moom diine moom dafa leer côté charia bi moom boo xoolee ñii ay awa la ñuy tudd Aminata ñi ay Soxna Jaara ñoom ñooy taxaw takk seen digg di xeex li yonent bi wax di dajj alxuraan suba ba ngoon jot. parce que xam nga lu tax parce que parce que non jàngal. parce que suñu ennemi ñoo leen jàng bi ñu bëgg dund ñun xam nañu diine du wax kese diine lu ñuy dund la ci xol diine lu ñuy jëf la diine jëmm buy dox la te loolu la tubaab bi comprendre léegi suñu daanee ba nga xam ne léegi kër man sama doom

li yonent bi wax kenn du ko dindi kenn dafa ni sharia dafa ni kenn du dindi baaxul dañ koy tere donc léegi nag comme tubaab yi seen programme. mais waaye préciser wutoon biir yi ñu dul dindi. non mais diine préciser diine diine wax de yow diine ngay wax de <laughs> léegi xam nga xam nga daf c'est très très clair li ma la bëgg a wax mooy léegi li am ni yëpp di xew dara waralu ko lu dul parce que tubaab yi dañu am seen programme teg seen agenda. bëgg doxal. ay eh, tubaab yi tubaab yi. mais ñoom la ils <laughs> sont nga ko. finalement nous nous ne sommes responsables xool non c'est nga la moo gën a uh-huh. ah, ci loolu nekk nii moo tax ma toog fii di wax. Uh-huh. moo wax ba ñàkk nii. <laughs> ci loolu lañ nekk fas ku nekk da ngay def li nga mën yàlla defal li nga mënul. Uh-huh. tey seen jëm bopp. dañoo teg seen Nations Unies teg seen i mbir ci dëkk yëpp di doxal. dëkk néew doole yee du ñu ŋaan parce que ñoom ñoo leen yor. li ñaan ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa Mhm. tey lépp loo xam ne bëgg nañ ko dugal ci ay textes yoo xam moom mooy supérieur suñu constitution yi mhm. fële ca Nations Unies ñu ciy dox di ay libéré homosexualité liberté pour la kii euh, homosexualité ay yëpp mi ci mi ci mi ngi ci bi mhm. programme ci kaw table Macky Sall bi Macky Sall ba mu quitté pouvoir bi dina fexe ba dugal fi fi góor jigéen yooyu yëpp dina ko def waaye bu soobee yàlla fi la fekk ñu wax si beneen mbir ba tey mm-hmm. dafay ànd rek si euh, ay valeurs yi nga xam ne euh, euh, dangay ngay bu baax valeurs yi rawatina si ay sœur jigéen le cas ba nga xam ne déggoon nañ ko daaw si mbirum Job Isaac tey ji mbirum mook ak Bril ak yeneen ñu dem ba sax découvrir na dañoo dëkkoon finalement ñu dem ba tëjan si police fu mu toll ni moom sax am na libération sursis kii di Dieynaba six mois mois am lañ ko condamné mais surtout euh, la am man bëgguma sax ñu attardé aussi euh, Dieynaba parce que dafay mel ni comme mhm. acharnement la mhm. mais est-ce que ba nekkul euh, partie visible bi rek nga xam ne dañ koo selleeku nemmeeku si xale yi nga xam ne dañ fi nekk si showbiz bi aussi mhm. te tey est-ce que tey jotul parents yi ñu jël seen responsabilité aussi par rapport à l'éducation de de leurs enfants aussi ah, c' est pas compliqué. Mhm. kii ka man gis naa ko quoi ñuy expliquer di wax mais man. Mhm. man du ma ci li ma a la c' est mhm. la jógee fan la xam ko. je t'ai posé une question de. ah, ah tey moom naa la jox benn chaque jour nga invité ma fi di ma posé tey may ma bi. <laughs> kay man maay tey ma may benn question moom jànaba bi. Ah. lan moo tax ñu xam ko. ah Karim man jànaba ah da loon woy xale buy loon jàng rek. kan moo ko bi. ah oh, seen petit gàllé la ko ñëpp découvrir. jaay na ko mii seen petit gàllé lii mooy produit xoolal produit fini wu seen petit gàllé la. mais est-ce que tamit Karim. Karim mën xoolal daa ma yëgali. da ma posé question dama baa ma yëgali. Karim xam nga ma yëgali. daa ma yëgali doom bu dem wéy yi mais est-ce que aussi. tamit. nan laa lay expliqué ma xam ne su daanul part de responsabilité. waxu su daanul ah.

Mhm. ndax star mu jàng école ak a borom jàng bu normal kon foofu laa foofu laa foofu laa foofu laa foofu laa la bëgg indi quoi mhm. léegi nag jarabam yi man mënoo si wax dara dul ñaanal ko yàlla mhm. yàlla tegal ko ci li mu nekke tout dindi ko li mu nekke quoi di wax booy man moo tax musique bi soof xamul tax musique daa fo man rapport la musique daa bëri fo moo tax musique dafa maa soof te am na yàlla bind ko pour fo seytaan dafa bëri doole ci biir musique bi. mais aussi divertissement àddina aussi ñoo ànd aussi. carrément non cest bindul àddina pour ñu fo man yàlla laa lay wax. yow mi wax ay divertissement am. mais mais yàlla moo bind aussi. nit gis nga waxuma la sa alxuraan ak sunna de waxuma la mbaa Alaaji Malick waxuma la sax ay alxuraan sunna boo xam ne nga xam ne loolu mooy récent mooy bu ne fekk leen ba mu baax yéen ci tëgg leen temps yi mais au loolu moo tax may la xoola musique buntu la booy may seytaane mu dugg loolu moom moo am quoi qu'on puisse dire loolu moo am léegi nag kenn bëggul sa doom li dal jeene ba mu dal sa doom te yéreemu ko mhm. ko ni nga mhm. récupérer mooy ñu ko yàlla yàlla jëli ko ci li mu nekk te parent bu ci amul sa personnalité ñàkk fulla ñàkk fayda ba jël say doom di leen ay seen petit gàlle loolu ci dal yaa ko yóbbu sa bopp ndax lii doy na exemple ne xale yi war ñu dem seen petit nañ jàngal xale yi leneen non xaaral la xale yaa ngi fi def di jël ay sëriñu daara yaa ngi fi di jàngal xale ñuy dem di dem fu nekk ci àdduna bi di gagné ay récitation kii coranique di tari alxuraan di ci am ay trophée yu nekk lu tax ñu dem choisir way ko comme bi lu bëgg rek nga ne ko loolu la des fois da ngay dénoncer xale bi donc lii pour man exemple la pour parents yi xam ni seen petit gars la échec la te ku ci jël sa teg ko dindi barrière ñàkk kersa bi xale bi ñàkk jom taxaw jàkkaarloog ay junni junni nit di woy ay woy yu kenn xamul après fii lay rek après dugg ci showbiz boo xamante ni ku nekk nga xool mu ko foowee ku nekk parce que Sénégal gars yi amuñu yërmande ci xale jigéen yi mais aussi zéro yërmande ci xale jigéen ci showbiz bi aussi euh, Karim nañ ko nañ ci taxaw kii di euh, Bril euh, mun nañu wax ne producteur am la woon te gis neen carrément relation entre producteurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ay ñoom ñooy seen artiste gis neen sax démb baki démb autant pour moi kii di Baba Amdi aussi muy wax ne mun na produire kii di ba après nga gis commentaire yi aussi nit yi ñu ngi ko ñaawloo par rapport ak liggéey relation bi nga xam ne ñu ëpp si producteurs yi dañ koy def mel comme ñuy def benn chantage ñi nga xam ne ñooy artiste rawatina. mais ça ne pas dire mais Baba Hamdy mais Baba Hamdy ni ñu ko am kii la Baba Hamdy ni ñu ko amee valeur la Baba Hamdy Baba Hamdy du moom dit moom yàgg nañ ci sa sobi da nga ko mën a xamal lu ñaaw non mais dama bëgg a wax la tey est-ce que jotul producteurs yooyu aussi euh, ñu xoolaat seen doxalin euh, seen diggante ak ñi nga xam ne ces jeunes talents aussi non dafa am lu koy jiitu moom laa la wax ñaawteef mhm. ah ñaawteef yi nekk ci mbedd bi ci biir kër la taataane wala ngaan génn ci biti Youssou Ndour moo ko way xale bi si biir kër gi ah mhm. lay amee fitu naan dafa bëgg nekk waykat wala mu toog di ñee ay xale yu nekk seen petit gàlle colinam ci mbir non xaaral moo ko rek dañuy waxtaan rek. des fois aussi. non il faut laa lay expliquer yow tu musulman wala tu musulman sa doom dafa am éducation de base boo xamante ni moo la ci war ba nga xamante ni moom même su duggee ci lii sax du ci pëttax. Ah, voilà foofu laa lay dellu aussi quoi. voilà léegi nag la man pour man man de sama doom du def musique. ah bon xanaa fekk koy mën di mën wax ak moom du ko sax bëgg te pourtant damay def vidéo dugal samay doom pour la parce que xamal naa leen lan mooy musique man lan moo ma si dugal ak rëcc yu ma ci am yëpp ak lu ma ci bàyyi nii dañuy waxtaan rek te dama la bëgg expliquer pour ñu comprendre ba ñu réeroo quoi. Mhm. seen petit gars baaxul. baaxul ci askan baaxul ci xale yi du du yarul xale yariñ bu baax xayma xam-xam nga ne déggoo ci benn promotion ban promotion bu ci xayma xam-xam léegi dëkkalee xayma xam-xam seen petit gars la. Mm. lan la seen petit gars def ci enseignement Sénégal jàpp xale yi Sénégal bu defee ay waykat ñëpp bëgg ñëpp bëgg mel ni Youssou Ndour suñu doom waykat yi teg ay greffage cinquante centimètres kii euh, cinquante mètres taxaw ci télé ay ongul xeesal sol yu gàtti nekk star ñu naan dem na États-Unis dem France xale yu jël di la foog ni dara nga fekk doo dara en réalité kooku yi vëdd nga sa bëgg-bëgg yëpp fajoo ko da ngay di bluff il faut ñu wax a xale yi carrément wax leen ni kii di fen ci télé bi amul dara day leen nax rek ay jafe-jafe kese ay problème kese lañ Michael Jackson boo star fa la yem mm-hmm. loolu à fois jeunesse te maa ngi lay wax enterrement am sax bi ñu koy suul pour nit ñi dañoo ñëw di xool corps rek dagg dagg ay billets yoo xam ne ay millions lañ ko doon jënde te ay bor yu jeex ko dàq bi gis ñu ci télé yàlla la nekk non loolu laa wax xale yi loolu laa chaque fois samay doom nee na ñii ñoo la gis di duñ nelaw ay bor yu jeex lañ yor liñ bëgg amuñ ko parce que yàlla mooy dalal xol te ñun nekkuñ ci yàlla tout à fait tout à fait euh, waaw Abdou Karim léegi euh, ñu wax euh, si beneen sujet beneen euh, sujet d'actualité boo xam ne mun naa ne euh, fu mu toll nii